صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان salaamaaleykum mbokk internet sans limite sn point com ñoo ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax di dalal Serigne Moustapha Dramé moom nag lañ fas yéene siqal tey ab waxtaan bu yaatoo yaatu lépp li nga xamante ni xew na ci réew mi rek mu nekk actualité ak leneen ak leneen li nga xamante ni euh, ci lay yëngu bañ xàmmee ko ci bu baax a baax euh, dañ koy daal ci bàyyi rek mu nuyoog mbokki internet yi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan après ñu door a dugg ci faram-fàccee waxtaan bi euh, sëñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax baax ci sans limite sn point waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nii waa àdduna di nuyu ñeent ñu dëkkee mi góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala kenn ku ñoom sax sàkkuteef yàlla rek moo ko mën a yéwénal yàlla na ko yéwénal ci barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ma xamal si na tijaani jërë allah ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ñu bëggoon dugg ci li nga xamante ni rek actualité la ndax ñu bëri génn nañ ci di ci wax te yow am nga loo xamante ni xam nga ko ci bu baax a baax ndax da nga bokkoon ci seen biir muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, soldats nga nekkoon militaire nekkoon ci seen biir yàlla defal la xam-xam nga xam lu bëri di gis lu bëri tamit daan ko wax ndax mën nañu koo jàppee ca dalay mën nañ ko dalee ci li nga xamante ni moom mooy jamonoy Coupe d'Afrique ba ba ñëpp teg seen bët ñu daati jóge foofu nga dugg ci li nga xamante ni moom moo di làmb Modou loo ak euh, Eumeu Sène la nga ca waxoon tamit ñëpp tegaat ci seen bët nga jóge foofu wax li nga xamante ni moom moo xew actuellement ci réew mi maanaam jafe-jafe yi ak rayante bi ak jëf yu ñaaw ji nga xamante ni ku nekk teg na ci sa bët yow mu mel ni que rek euh, am nga loo xamante ni xam nga ko ci te am nga ci ay solution yoo xamante ni mën nga ko ci apporter looloo tax ñu bëgg a séq yow tey waxtaan bi waaw ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yéen yàlla di musal ñu si làmmiñu fakkastalu di wax ne euh, yàgg naa ko wax réew mi dëgg dëgg dëgg dëgg sax li war a ñëw dëgg ak seegul dafa am benn mag bu ñuy wax sëriñ si Ahmed si waxoon na nañ sang réew mi yaakaar naa sax li tax mu wax yegguñ ci mu ci kanam ma di la xamal ne la réew mi raay gi dina gën a ñaaw dee mi dina gën a ñaaw li ko waral nag mooy li fi dugg ci xeetu jinne xeetu rab yu bon rawaxaani yu yées yoo xam ne xabtal nit rek mu def ak ñaaw téef rek li mooy tax a jóg kenn xamuñ toll damay wax ne borom xol fi ne mboolem jinne yu nekk ci Guinée Bissau na Conakry Mali ñëpp daanaka dañuy wàllu seen ci dëkk bi ci suñu gaal gi te boo dugg ci wàllu sécurité ñu ñu jënk sécurité muy police ak gendarmerie ak armée loolu du seen domaine xamuñu ko man def na armée waaye gisuma fenn fu ñu jàngalee soldat ne ko bon nii nga gisee jinne wala rab ak rawaan armée jàngalu loolu waaye ci biir loolu nag yàlla tàggat na ay doomu aadama yoo xam ne nii avant armée am nañu xam-xamu baatin dem armée génnal armée di kat nekkaat di taalibe ci daara ji yàlla xamal leen loolu damay faral di wax ne toujours état def ci am responsabilité mooy lan il faut mu ut ñu dëkkee baatin xam baatin mën baatin wéet pëng mu ni leen nan la ñuy def ba sang réew mi sang réew mi li ko mën yomoon alquran kese boo ci demee mën naa sang junney jinne boo ko tegoon jàng li illa fi Qurayshin li mu ahonge maanaam sept cent soixante-dix-sept mën naay duma junne jinne li illa fi Qurayshin benn li illa fi Qurayshin mën naa dàq fukki junne nga nga jàng ko limul ahonge maanaam xaddudu ahonge baatu ahonge boo ko darboo sept cent soixante dix la nga jàng ko ci li ilaafi Quraysin xamul lu mu mëntu fànq xamul ci àdduna waaye nag bala nga ko mën a def il faut nga xam jinne ji ko jàngal ban jinne la fu mu dëkk ki maamam ban dëkk la jóge ak lu ko tax a jóg lu mu fi yàqagum ak kenn war a mën a génnaat ak nuñ koy génnewee mu benn jinne boo mën a gis ci àdduna yàlla dénk na ko rawaan ya doomaa dem mën a am ñaari rawaan wala benn rawaan ya jinne benn jinne boo mën a gis si àddina fukki rawaan ak ñett lay àndal bu dee jinne bi yàqkat la kon xam naa fukki rawaan yi ak ñett yoo xam ay yàqkat lañ il faut kon ñu gëstu xam ku mën loolu ñu taxaw ci loolu taxaw ci ak sécurité ñaan yàlla jinne yi génn fi police ak gendarmerie ñu ngi leen di ñaanal yàlla ak armée ñu ngi def seeni liggéey ndax man jaar naa ci xam naa ni métier du am vie de famille la nga fay am salaire du ko mat mais nag seen réew moo lañ jaral loolu te it nag kenn ku ne xam na ci ne ñoom képp ku dee ci défendre sa pays réew jihaad la ci yoonu yàlla ajana moo sa fay kon il faut ñu respecté leen te ñaanal yàlla nag ci li ñu nekk ñoom yàlla mel leen ci ak mucc muccule nekku nekk na li nga liggéey ci la la ngant di fekk ci la ndog di fekk kon il faut ñu xam loolu deuxièmement bi mooy il faut que état taxaw tem si ñaanal nit ñi yàlla askan wi yëpp seen engagement seen droit seen responsabilité seen sécurité ni état war a jëlee ay soldats recrutés ak ay gendarmes pour ñu assurer seen sécurité noonu la war a xoolee ay xale yoo xam ne ay jeunes leen am nañu xam-xam xam lu peng ñu taxaw ne leen taxaw leen ci réew mi ne lii ak lii jógee ba fi ñuy wax bëri na ba fi ne ku wax rek ñu am fu la dëkkal waaye yàlla mi nga xam ne mu bindoo doomu aadama xam ne ne xam-xam ba léegi mu ngi koy maye. kenn gëntu baax yàlla rawatina nga yàlla nga jóg pour sonn ngir xam lu bëgg mu xamal la ko rawatina nga jog pour sonn ngir ñaan ko yàlla mu may la lu bëgg ko ndax moo ne ñan leen ma ma may leen kon ku ko ma may la kon ñu dellu ci loolu kenn yàlla subhaanahu wa la ndax li ñu mën a am mbéb ci réew mi yàlla mun ko yeggal incha allahu taala yàlla mun ko yeggal yow fi mu toll ci biir waxtaan bu ma la déggee wax nga fi li nga xamante ni moom moo di ay solution ñu buggoon rek nga tënk ko solution yi nga xamante ni moom nga gis pour loolu noonu yëpp jugee ci réew mi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi ŋànk loolu wàllum surtout li nga xamante ni moom moo di sécurité bi mën la cee fekk si ba saafaral loolu dama ne la rek commencé ci njiitu réew mi son excellence président Macky Sall ci Marième Faye bu ñu yaakaar ni lii yàqu-yàqu dugg ci réew mi di xeetu jinne ak rawaani ya ñu mucc nañ ci muccuñ ci nañu ci taxaw temu nit ñu défendre suñu réew mi ba kenn ku yàqu fi dugg nañ ko fexe taxawee ko ba mbooleem luy rawaani ya wala jinne dugg ci dëkk bi génnaat te kenn du leen génne lu ñu wax dëkk bi te xam nañu fi nekk xam ko mën ko mën leen di génnee il faut que ñu taxaw contacter ñooñu jàppalante ñooñu may leen doole ñu génnee leen ay saraxi la yu ñuy def wala ay ñaan walla lan. ñaan yàlla ci njëkk li jiitu mooy ñaan yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala fexe nag si mi ay jinne jinne du dara doomu aadama ak pexe benn pexe doomu aadama xayu ci fukki jinne kon war ñoo mën a taxaw def suñu pexe ci moom waxuma la baatin euh, dafa am benn kilifa gu mag ñu wax Serigne Nourou Tall ñaan ñu ñaan yàlla yal na yàlla subhanahu wa taala yaatal bàmmeel fam tëdd am mboolem ku fa nekkal gis nga yàlla dénkoon na ko ci xam-xam képp ku ko tool bu la bëggee duma duma la te xamut ku moo dox sa diggante ak duma gi ba dul duma moo xam ngay jinne moo xam nga doomu aadama xam na lu ko yàlla mayoon ci xam-xam fii lay toog jëli bi def sànni ko ci jant bi jant bi bu lu tiimee yow yow ma ko tooñ la mu yéene ci yow ndax naq dafay am loolu yàlla meen ko xam-xam bu bàyyi na ko fi xam ñu ko xam ci dëkk bi bu jël bu ñu jël ñëpp multiplier leen par zéro déedéet ba léegi numéro déjà yi nga am waxuma man cadre man pour publicité pour jiw amul ku ma xamul fi ni ci réew mi amul ku liggéey mais dafa jot nag rayante gu ñaaw gi am ci dëkk bi accident bi ñaaw bi am ci dëkk bi gàtt fan gi nit ñi di gàtt fan nit ñi li leen di xabtal ci seen kër yi ba ñu dëkk ba ñu joteeg seen papa wala seen yaay yi ba li ñu waroon nëbbu ci kër yi ci sutura nëbbu tuñ ko ñu génne ko ci mbedd mi yooyu yëpp nag il faut ñu xam lii xabtal nit ñi lan la ñu xeex faag loolu mën na la bu kenn yaakaar ne mucc nga ci gis nga euh, soldat bi taxaw ca frontière ba fi ko jinne jaar fi ko jinne jaar ba dugg ci réew mi jinne mën na koo jaaree ba dugg Paris wala feneen feneen kon li yàlla waxoon naan li yàlla waxoon ne bu la nee fin na fin naa ngi nelaw olof njaay ne xay du yow xay du yem si bopp borom kon ñëpp nekk képp kon ci jàmm war nga jóg taxaw fexe jàmm ji nga nekk continué sax dàkk boo taxawee ci tànn yàlla baax na nag yàlla baax na yàlla baax na yàlla sàkk-sàkk jinne kon il faut que ñu taxaw ci insister sécurité boobu noonu nga xam ne police ak gendarmerie mënuñu ko gis ñu taxaw ci gëstu xool ñu ko xam ñu waxtaan ci ñoom xam benn réew nag ci àdduna booy dem fii ba Inde boo xam nit xam nañ ci xeetu gàllaaj lu ñu xamuñu Sénégal yi amul problème bi ke mooy dañuy weddi ñun gëm ñooña te teewuñu am xam-xam loolu la amoon lay wax ci côté boobu di ci bàyyiloo ñëpp xel nañu taxaw ci loolu incha allahu taala macha allah kàddu yi am na solo lool lool ah, bu ndaati jógee foofu rek ñu dugg ak yow si li nga xamante ni mi ngi def actualité tamit ba tey ci réew mi ci même lancé boobu noonu sax lañ koy daati dugal eh, ndax soxna soos nga xamante ni moom moo tudd Seyda Zaman ginnaaw bi mu génnee moom tamit eh, ci ay vidéo yoo xamante ni eh, kenn mun laa wax sax lu mu cay wax ak lu mu cay def mu daati jur coow ci dëkk bi ñu ni day auto autoproclamé li nga xamante ni moom moo di yonent bu jigéen yow loolu ban jàngan nga ci am. Euh, dama dig ay kooku jinne ko fàdd Zeydi Asamaan jinne ko fàdd li ma lay wax léegi si xeetu jinne yi laa wax dégg naa gars yi ñu naan ay formation ñoo ko ngemb ak kenn ko ngembul ku jinne ko fàdd da da daa dof de dafa dof ko xel mi dem ay mbokkam na nañ ma ko indi ko dañ ma ko indil fii ma faj ko kenn ku ne xam na ne ab naar bu jógoon wala nit ku bokk ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam ko taxaw fii ni man ab yonent laa ab yonentu bees laa kenn du lu gëm ndax yàlla gàntal na ko waxuma laa ab jigéen joo xam ne gis naa photo yoo xam ne barki démb photo yoo xam ne bu njëkk la daan sol yur yu bon la daan sol tey soo bëggee taxaw xoote ak loo xam ne nii yàlla mos ko may ab ab ab ab jigéen saqal fi jinne ko fàdd te nag képp koo xam ne jinne fàdd na la amoo kilifa da ko gëm boobaa nag yow ak moom ñëpp bu ngeen dee safara ngeen jëm man a bëgg naa ko biir ay mbokkam nañ ñëw nañ ko indi fii ñu faj ko. kon ba tey kon ñi ko topp noonu noonu ñoom tamit jinne da leen a fàdd. barke barke karim ñoom ñëpp la jinne fàdd jinne ju mag a mag a mag a mag a mag nag moo leen jinne ko fàdd de jinne ko fàdd du faramason du kenn ko ngembut ko jinne ko fàdd daa def ñii xanaa déggoo nu muy def baat bi ça veut dire que kon kooku seytaane bi ko dugg dafa am doole lu benn seytaane seytaane bi jinni la nañ ko faj ndax euh, dama tiit ci moom lool. dafa am loo ci moom damaa lool lool lool li ma gis man ci wàllu mbiram fi mu jëm moom moom yeneen euh, euh, yërëm naa ko yërëm na ko maqaamaab yeneen wala wala yu jigéen ju koy xoote sax. te nekk ko ci yow boo kafe oote ba mu ñëw ci yow sax nga faatu maqam ma yonent wala maqam ma xutbu wala maqamam nujubaa wala nuqubaaw wala labdaal jigéen ju koy oote di ko forcé ba mu ne wàcc sa kaw kerek wàcc sa kaw kerek la yàlla jël sa ruu ndax jigéen at na ko kii nag moom dama ne la jinne moo ko fàdd boo xoolee yaayam ji wax ci internet bi bay jooy war ngaa xam ne yaa xam na ne kii xel mi ne du fi da feebar mboolem koo gi mu topp ko da da feebar ñoom ñëpp la gën a dugg moo tax ma ne la état yi bu ñu taxawul ci lii dana yàq lu gën a puré lii li war yàqu dëgg dëgg dëgg dëgg ñëwagul réew moo xam dana ba fi ni kenn du tudd góor jigéen kenn du tudd farmason mii réew mii réew lu fi war a nekkoon ak réew mi nga xam ne li fi moo ko alxuraan ci ay xale boo duggee fii Colobane wala Sandaga xale boo gis muy ambila ba woon ko tëri mu alxuraan mu tëri la dugg si ay kat kat yu rafet nga yaakaar ne loolu loolu yàlla mën na ko gën lee ñoom ñëpp pexem seetaan ci ñu dund. yàlla nag moo sañ jël nit def ci moom dënnam alxuraan ba nopp muy wëreelu jël nit ku ko jël ñu ko tus mu boole ko seetaane jox oto jox ko airpilis nga ne yàlla daf laa nar a duma duma yoo xam ne. duma la dumaale képp koo xam ne jàppale la ci la nga nekkoon ndaw si nag bëgguma loo dal ko dekk ci kanamu yàlla ñu koy duma ci kanamu ay nawleem yéen mu ko ko internet sans limite sn.com fàttali leen rek waxtaan bi ñoo ngi ko séq ak Serigne Moustapha Dramé dégg ngeen yàllay kese dégg kàddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko ci lépp li nga xamante ne rek moo ngi def actualité ci réew mi moom nag lañ dalaloon tey ñaari numéro téléphone am moo ngi noonu en bas de képp koo xamante ni li mu fi wax soxal na la li muy liggéey ak li muy yëngu yëpp da nga koy woo ci 78 134 20 51 beneen bi 77 la 169 28 64 képp koo xamante nii rek woo nga ci numéro yooyu di ngeen jokkoo ba ba ngeen déggoo ci bu baax a baax buñ jugee foofu ñu daat koy jeexalee ci li nga xamante ni moom moo di wàllum seet li nga xamante ni ci ngay yëngu ba ñëpp xam la ci. Euh, waaw ñu sant yàlla di julli seen di salaam ci wàllu seet moom damay faral di wax ne yàlla su ma subhaana taala may na doomu aadama lu gën baax sax nga tiim daal di seet am na jaamu yàlla yoo xam ne lépp luñ xool xam ne ci yàlla moom loolu la ñuy wax kasfu xam na nag ismulaay sam bu koy mayee am na sirru boo xam ne moo koy mayee mais est-ce que ñëpp ko am déedéet ñun nag yàlla subhaanahu wa taala dénk nañu ñuy jaamu yàlla di gëstu ale lépp loo xam ne nii mu ci suñu kanam ñu jëm ci muy man muy suñu mbokk la ba mën a moo xam li sa la moo xam léegi setal gëstu ko xam ko xam bi pëng luñ soxla lu nekk nag boo bul yàlla mayee fan boo dundee gis ko set moom sant nañ ci sant nañ ci yàlla bu wér wér wér système biñ ci yor mooy ba Macky Sall mi yoroon xam ne sunu suur pëng la dañ ko defee du rax nag lépp ku ñu oo ci listixaar ak foo mën a ne wala seet la mën a mën nañu sàkk ni ko ndimbal ci yàlla nekk diw mii de lii la bëgg a leerlu bëggoon naa nag yow yàlla mi nga xam ne nii lépp loo leere mu leer leer lal ma ci mbirum diw nangam lu ñu jàll wan buy wax la ko amuñu ci sentiment loolu la ñu yàlla may ci mbiru set macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga tàggoog internet yi nga xam ne ñoom ñoo la doon seetaan waaw di wax gars yi nañ bàyyi nañ delloo seen xel ci yàlla rek xam ne àdduna amul solo li sëñ Abdou Aziz Dabakh daan wax naa ñi ñëpp ay néew yu dox lañ effectivement boo ko ñun ñëpp ay néew yu dox lañ ñun ñëpp ay néew dox lañ man nag diggante dund ak dee li ko tàqalee lu jege la li leen boole tamit kenn xam um doon kon ñëpp nañ bàyyi xel ci loolu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu ci kàddu yi ci ka ñëpp bakki na salaam jërë ngeen jëf نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا